jërëjëf mbokk yi seetaan kon ñu ba tey ñu ànd ak yéen fii ci Taïf ci gàmmu 2015 seen mbokk mbokk mbokk yi Mor Fane ba fas yéen ci ànd ak yéen fegoog Serigne Khadim Ndiaye Serigne Moussa Diop eh, ci ni nga xamante ne njabootu Serigne Madiba Sylla gépp marché àndandoo teew tey ci kanam Serigne Abdou Fatah Mbacké Gaynde Fatma muy jotaay bu am solo jotaay boo xamante ne wax dëgg yàlla keroog képp koo xamante ne rek teew nga fa sa rongoñ wadd na ndax jotaay la boo xamante ne fàttali ñu bëree bëree bëree bëri eh, ginnaaw bàyyi sëriñ si la jël fa kàddu eh, kàddu yoo xamante ne kenn kenn kenn mënu ci teg lenn loolu rek ñaan suñu borom bi nga xamante ne mooy borom lépp ak cëpp ak ñëpp eh, yéeneem ci xolam suñu borom fay ko ko kattanal ko ko ba lépp lu mu yéen suñu borom may ko ko te keroog kàddu yoo xamante yëf ni ko fa masha Allah daw na yaram lool ba tey mu mel ne njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye yi fekk nañu fa njabootu Serigne Fallou Sarr ñoom ñëpp ñu daje fa ak njabootu Serigne Makhtar Diop Thioump wax dëgg yàlla daal seex su bëree bëri macha allah keroog teew nañ ci kanam suñu Gaynde Fatma ziar wuuf doom ji di Serigne Moustapha Mbacke Mohamed yàlla na ko yàlla guddal ak fanam yokku wéram kon mbokk yi euh, ñi ngi tey fii fi tàyyi foofu seen andil euh, ziar bi nga xamante ne waa kër sëriñ ma diba si la ziar nañ ko te incha allah képp koo xam ne déglu nga wax ji te seetaan ko yaakaar ne da nga am pas-pas xol boo xam ne da gën a amaat beneen yéen gën a taxawaay bu gën a rafetaat taxawaay bu gën ëpp yéene ci li nga xamante ne sëriñ ma sëriñ Mbàkke si la ma diba euh, yëg na ko ci ay kàddu yoo xamante ne kenn ku nekk mën ngaa wàññi lépp lu mu wax dëgg la te lu am solo la euh, mbokk yi kon dañ leen di bàyyi rek ngeen àndoo ak ziar yi nga xamante ne moo am fii ci gàmmu 2015 njabootu sëriñ ma diba si la sëriñ Maxtaar si la mii moom lañ ànd a siyaare si la ngay wasilaam du suñ wasila wasila ndax sëriñ Maxtaar bi mu noppee gis sëñ Mbàkke Soxna daa ñëw jox la boppam man ma jox sëñ Moustapha Mohamed sama bopp ci ndigalu sëñ Mbàkke ci ba mu jàng alxuraan yàlla dogalu kenn ku yàlla man ne yëkkati loxo ci tey jii ne maa njëkk a jébbal sëñ si la sëñ Moustapha Mohamed amut koo séen muy dox rek maa ko njëkk a sëñ Moustapha ci ndigal sa mag ju sëñ Mbàkke Soxna Lo te moom ci bopp moo ko wax ci làmmiñam ne ceew laa njëkk xam taali bu jëblu ci man ba ma jëbal ci moom ma nga jàngal xuraan daa dikk kër Mor sëñ bi yebal ma ca moom mu def lam defoon la sëñ Moustapha sëñ Maxtaar si la muy def li tax ñu ànd moom ñëw ci lay nag dañ ne ko leer muy fànn yu bari bi ci jiitu moo di dëkk bi ñu nekk tey jii moo fi sëñ Madiba Sylla ni ma gëmee nga xam ne boo indi alxuraan ma waat na ay Serigne Cheikh Mbacke fii nga toog noonu laa ko mën a waatee tey buñ ne sëñ Sidi Moxtaar mooy Serigne Touba la mu fa nekk tax am na ay doom baay dafa mag moo tax sëñ Moustapha Mohamed yaar dafa am yoo xam ne ni loo dégg mu ñaaw du moom lu rafetut du moom luñ wax def te du moom du moom ndax nit du wax lii ba pare delluwaat ci ginnaaw pam la teg xam naa ko lam na gëme xam naa ko mang mom dañu and ñew sa kër sikap certi la biñu genn mom ci bop moom wax ne ma sëñ Mouhamed mooy sama sëriñ sëñ Fata moy sama baye ta bama koy wax leel léeg sukkat ko te maa moom yàlla rek and ànd te bu togon du ko weddi ndax xamna naa loolu la gëm kéro ba sëñ Mbacke lo genn aduna ma yow ci ñoko ko def fa mu bokk ca laa bokk nga bok ya nga ya ko jité ma bok ci ñoko ñoko ña fa def bam ko déggé Euh, euh, daar Jolof la ma wooye fekk mag euh, garde salle mi taxaw oto sëñ Ndiagne Assoula dem wujjee ko Touba ndax ba ma wooye dama ne ko sëñ bi de maa ngi lay ñaan nga ñëw fii ndax dëkk bi yëngu na mu ne ma defal li ma la wax nañ daje Touba ñu dikk maa moom ñu tëjoo ci ne bu wax la ñuy wax. ba mu fa génnee ca foofee fii la fekk jox la boppam àdduna ak àllaaxira te naa waat loolu mooy dëgg ci moom ca lan ca ne ba nag a leneen lu man doon keneen du moom. te tey boo mu andiwoon ma a waat Serigne Touba ne lam def mat na ko ndax man de sañ naa koo tudd ndax dund tudd am na kuy dund ku ko wedd bu suwa nga bu ginnaaw suwa fekk ma Dakar maa ngi ba ca kooka fii la sëñ Mbacke Soxna taxaw fii ci toog ci salle bi sëñ dooy ànd ak kenn ci ci gaañi garde salle la fi njoogu faa la fi ku fi mën di nekk njoo ma Diop ku mu neex bu ñu demee ko mu toog sëñ bi tey sëñ dooy dajeeg yow ngay génn mu ne ko ndax gis nga fataa mu ne ko dañ mu ne ko ma nga jëm sanc boo demee nga seeta ko ndax sëñ doo yëg nga ne fataa ko sëñ Cheikh yoreel bon moo ko war a fay bon ba ngay war a nekk place sëñ Cheikh bi sëñ Mbàkke nga dund te loolu njëkkee woo ko sëñ Mourou Moussa def na ko sëñ Touba def ko man nag li ma mën a seere man sëriñ si la mooy ñaar ñi fa indi lañ mat nañ ko sëñ Ndiaga mii di sa sa taalibe bi de giñ naa ci sëriñ Touba ne li muy dox ak a wax barke sëriñ Touba bu sëñ Touba dellusiwaat nu ko soppat. jaw mi toog ba ma lay xam sëñ Mbacke Soxla nekk ci néeg maam bu sa bii néeg màggat si sa bii di saal bi may bëkk néeg bi boo dikkee nekk ci biir saal bi bu Baara Ndiaye si dikk Sidi Ndiaye Baara Ndiaye Sidi bu dikkee ca lay nekk boo dikkee ma gën tëdd ca taatu garab ga Baara Ndiaye bu dikkee ma tëddee moom ci néeg ba booba yàgg na tabarki Sëriñ Tuubaa boobaak léegi soppatoo fi dara dara dara barki sëñ Bamba bon li ñu fi fii rëy na te diis na ci ñoon te loola li ñuy ñaan mooy sëñ Moustapha euh, sëñ euh, Abdou Fatah ñàkk xam rek am ñàkk xam rek am waaye ku la yàpp daa xamul sëriñ Cheikh ku la bëggul daa xamul sëriñ Cheikh te ku la wet daa wedd sëriñ Cheikh mën naa waat sëriñ Tuubaa ku bokk ci sëriñ Tuubaa te xam daal tey fanaan daal lu mu tuut tuut bëgg na la xam daal te xam ne yaay kan barke sëriñ Tuubaa man sëriñ si la. bu doon damay dédam sawar kenn mën tax mbay la kenn mën tax ma samante la kenn mën tax ma sagane la te man na wat mo mo ngi ci mo ngi ci ndax man saab serigne la gëm muy serigne Moustapha serigne Moustapha mën wax man ku jëbul ci yow ne ma yaa ci nit ñi yow la jox bopam yaay bayam nit nit nit doom at koo koko man yàq ab waa ab kan way du deug moko wax te bu togam naa ko wax bon nak serigne bi leen rek fi seuss jégalal jaam ñi fi tok fi ak ñi fi nekkut bëkk démb am naa lu ma nettali boo ma jégalee man ko nettali bu de man naa ko barke Sëriñ Tuubaa ma yaakaar maa ko gént maa gént nga taxaw ci garab am ku dikk ne sëñ Fataal bu ko neexee taal garab gi bu ko neexee fay lamp yi nga taxaw ni yëkk sa loxo garab yépp takk ba ma xëyee nett laa ko def naa gàdd saal mi ne ko man de leen xam naa ko la ma sama waajur wu tedd waxoon day gëm naa ko sëñ Touba sëñ Madiba Sylla moo wax ne képp koo xam ne nii ku bokk sëriñ Touba yi ci gën a araam moo di def mooy naan sàngara fekk la sa biir kër sa biir néeg sa kaw lal sa jabar mu njaaloog moom nee na nga dóor ko sa bu siggee lu mu la wax boo gëmut xamul sëñ Touba te man naa wat sëriñ Touba ni loolu dalu la ñoo ko sëriñ ñëpp ñu sa ginnaaw tey ak ëllëg yow lañ yaakaar adduna ak àllaaxira ndax man sama serigne yow la yakar te man duma del sama duma nangu mukk ci aduna sa serigne ya fa gën ne sama serigne ab serigne ya ma fi yes duma ko def mukk ci aduna barke serigne bamba serigne fata kenn xam ko la gën amo soxla ci dara lur yalla ak sëñ tuba lijjante wo dara lur yalla serigne touba man nga muñ lepp barke serigne touba ab nawet yak ko yaa muñ bon li nga xamne mom la ñaan ñun ñi fi ñepp barki sëriñ Tuubaa bu fekkoon ne suba la la suñu borom moom kenn ku nekk yàlla jël ci am at dolli la ko ndax rusloo wër sëñ Mbàkke Soxna Lo xam naa fam la tegoon damay wax ne ñi nekk ku ma ci gën a xam sëñ Fataa mi amut ak doom yi nga jur ak mag yi ak rakk yi xam nga li tax mooy sëñ Fataa daal respecté woon sëñ Mbàkke ba ñëpp nepp na koo ragal ragaloo ko da bari bëri war ma rek te xam kan mooy sëñ Mbàkke nga xam yaay kan sëñ bi ku suur du baa koy def koo gis mu ne am naa xaalis baadoola la ku am xaalis du baadoola wax ko kenn da koy da koy da koy jëf ñëpp xam ne jëf na ko te jëfe nga ko ku la gërëmut baaxut ku la gërëmut gorewut man maa ko wax man sëriñ si la ku la gërëmut baaxut ku la gërëmut gorewut barki sëñ Tuubaa ma yaakaar te lii may wax de ragalu ma ci dara tiitu ci dara képp koo xam ne nii wax na loo xam ne nii mu ngi du loo xam ne nii dëppoo naa la nga bëgg yamal xëyam dana ko layoo bu layoo danga ko yeyte boo koy yëgul mu dem sa wara nguuru suñu borom kenn moomu ko kenn ku ne kumpal jox la sa jëf yaa ko moom koo ci yëgut kenn mënu ko mënu ko faj sëñ Mourtala maa toog maa ngi moom ak yàlla ci euh, états mu ne boo gisee nit yàlla yi gën a ragal yàlla xamul tax mu ne ma dañoo xam nguuru suñu borom kenn ku nekk la nga jëfal suñu borom ko faj maa moom ko wax sëñ Mourtala naa ko fekki booba la doon jox sëñ Mbàkke soxla euh, Kadiak ba ne ma dama am euh, oto moo doon defar sëñ Mbàkke koo yónnee ba mu yàgg mu ne ma wool ma Mourtala Mbàkke Daaru Musti mu dikk mu ne ko wala Basiru kay nekkul andi waxukaay gi daal di woote kër mu nañ ko yóbbu ma ne ko ah sëñ bi yow li nga wax du wax léegi mu ne ma lu wax wax kenn du ko waaj ndax xamoo kañ day jeex waaye lu bon kenn du ko waaj ndax xamoo kañ ngay jeex bon lii nga nekk yàgg nga ci mën ngaa muñ gore nga képp ku lay yaakaar am na ndam barki sëriñ Tuubaa ma yaakaar doo rusloo woo ku yàlla bind rusloo woo sëñ Tuubaa mi ba ngay jëfandar sëñ sëñ Tuubaa mi ñu bind ci ab journal ñëpp a ngi foon xam-xam man yow yaa jël responsable te loolu moog jël ay ay xeej guerre yi ñoo yem koy def ndax booba ñii fi nekk ñëkkuñu woon boo fi newoon duñ fi ñëw ndax booba sama baax jaa ngi fi sëñ sëñ Abdoulaye ne fi ñëpp ne fi nga jël responsable sa bind mbopp défendre sëñ Touba défendre boo ca nga nekk ba nga défendre sañ Touba mooy lan muy ñun ñii di sañ njaga di sañ dan mi kilifa ba ba la ñoom ñii kenn ku nekk defal Sëriñ Tuubaa mooy lañ lañ la la la boole nga sàmm leen ànd ñoom ci ngor ak teg ak yar ak taalibi ba du kenn du leen du du du du su yàpp loolu nga ànd moo defal Sëriñ Tuubaa képp koo xam ne yaa ngi dox di def loo xam ne nii yëpp tax nu ñëpp Sëriñ Tuubaa wala ñëpp yëpp ko bokk Sëriñ Tuubaa ku mu mën doon boo daj Sëriñ Tuubaa ci mbooloo mu dox da nga ko layoo boole benn jàmbur pour ñu foyee ñu Sëriñ Tuubaa yàllaa nu moom dañu leen dénk jox ñu leen kuñ képp ko xam dañ la dénk jox la nak jappal ne bis dañ la ko laaj te képp ko xam ne yaa ngi doxandoo wax ëllëg bo bo lay su borom mu yey la war nekk sa ginnaaw war ñoo tiit bon alhamdulilah rabbi bi nga xam ne tay ji ci ëtt bi sama sang baax fi la tok di fa fanaane bëss Tolong. toog leen toog leen toog sëriñ bi jërëjëf sant nañ baax gërëm nañ yàlla bu baax sant nañ baax gërëm nañ yàlla bu baax bi ñu boole yéen bi ñu boole yeen gërëm nañ yàlla bu baax ndax bu fekk bu fekkoon ne day fii nga toog buñ ne ma ne and ak ñom dana ma metti loolu te duma ko mëna faj waye man na wat serigne touba bu serigne bakki diko fekk la nga doog durus man na wat serigne touba ni ñepp serigne bakki diko di lutax ngeen nga def ko bon nak moo tax ñu def ko tuddu duñ teelu gannaaw ba abana ñun wa keur serigne Mat sel ba ci serigne jagami ba ci serigne Daan mohammed wasalaamaaleykum alaykum rahmatullah wa rahmatullah wa barakaatu Euh, ci turu sëriñ Dan jaarale kàddoom ci sëriñ Maxtaar muy sëñ Njaga mii Cheikh Abdoul Fatah Mbacké mi ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax sëriñ sëñ bi nee li nga wax lépp dégg na ko noonu mu ko dégg it ni la ko gëme te ni la ko xamee mu di leen xamal ne ànd bii rek la sëriñ Touba ànd nag seen maam ànd bi it la sëriñ Mohamed ak sëriñ Cheikh ànd nag seen i wayjur ba ci moom mi te fas na yéen ànd bi rek lay ànd ak yéen muy ànd boo xam ne ànd bu dëggu la ànd boo xam ne yàllaay kese la ànd boo xam ne sëriñ Touba rek a tax amut genn bëgg ci àddina mii loo xam ne dana ko jaral mu di ko wuti lu dul taalib yi di benn lu dul li fi Serigne bi bàyyi woon ñu saxal ko ndax moom li mu bëgg lépp Serigne Touba dana ku fekk fii defal ko ko kon nag li mu bëgg yéene leen ko te yaakaar ne da ngeen ko am mooy ngeen bennoo rek sax ci li leen fi maam yi bàyyi lan li leen fi kilifa yi bàyyi lan xam ne loolu mooy njëriñal àddina mooy njëriñal alaxira te moom de nee na bu sañan bu gisee ak Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma la mu koy wax ci njaboot gi lu mel nii de lu mel nii rek lay doon ndax bu sañan am ndam te ndamam mooy seen ndam nii ngeen ànd Serigne bi nee na ànd bu rafet la ànd bu bu ko neex la jataay tey bii nee na jataay bu koy fàttali jataay yu yàgg la jataay bu rëy fi moom la boo xam ne toog na jataay bu tay ba tay waaye sëñ bi nee na jataay bu toll ni jataay bii néew na koo toog ndax bari na loom ci fàttaliku bari na loom ci gis ndax nii rek la Serigne Touba doon def ak seen maam moom it nii rek la fas yéene ànd ak yéen mu di leen xamal ne na ngeen ko jottalee ay cant ci mbooleem taalibe yi te xam ne lii daal mooy yoon wi lii rek mooy yoon wi lépp loo xam ne am na ko ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla bokk ko yéen bu ngeen yeboo seen xel daal bu baax a baax a baax a baax te xam ne yéen ngi ci yoon wu ngeen war a aw moom it incha allah fa mu féete ak fa mu nekk fas na fa yéene sax dàkk di leen yóbbante ci taawam ba muy sëriñ Moustapha ne leen xamal leen ne sëriñ Moustapha waxtu wu ne mi ngi diglu taa mi ngi diglu ndigalal sëriñ bi lepp loo xam ne defu ko mooy sëñ bee ko ko diglut waaye sëriñ bi nee na lu ma bëgg bu ma ko waxee dana ko def nam ko na mu gën a gaawe sama taaw mooy sama doom di sama taalu bi na ko ñëpp xam mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp di ñaan mbooloo mépp fi waay dem na ngeen àndale te yéene di benn rek te xam ne lii rek mooy lu nu amal njëriñ àddina ak alaxira am nan lu nu bokk loo xam ne duñ ko séddu mukk bu du dedoo ci suñu borom kon nag bu dara yàq loolee muy àndandoo rek te loola li nu koy may mooy ànd bennoo te yàlla tax sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp mi gërëm ñëpp di ñaan képp koo xam ne nekk nga fii te ñëw ci jataay bii yal nañu sa faj aajo kilifa yi nga xam ne itam ñoo nekkul te yebal leen ngeen ñëw fii muy sëñ bi nag mboolem ay rakkam sëriñ bi nee na mi ngi mi ngi ko yóbbante ay ñaan di ko yóbbante ci taale bi yëpp ñu ñëw ak ñu ñëwut ñëpp mi ngi leen di sant di leen gërëm yal na leen yàlla defal pajog aajo xolam sedd na guy di leen xamal ni lii de waxtu wu ne su ngeen ko bëggee ci moom rek ak fu ngeen ko soxlaa sëñ bi noppi na pour di leen nekk te nee na bu tànkam woyofee am na yéene ñëw ba ca béréb ya fépp fu waay nekk di taalibe Serigne Cheikh Mbacke Cheikh Abdoul Fatah Mbacke nee na am naa yéene agsi ba foofa nuyu leen siyaare leen saafonte ngeen ndax lu fi waay am Serigne Cheikh a tax te mooy Serigne Cheikh kon nag mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal yàlla nu fekk ko déwén ak di gërëm sëñ Maxtaar mii baax a baax a baax